ndam la jam moo ko fa am moo ko fa am jërëjëf Ama jërëjëf jërëjëf borom nen bi jërëjëf borom nen bi jërëjëf jërëjëf borom nen bi jërëjëf jërëjëf borom nen bi jërëjëf moo ko fa am voilà dégg ngeen message bi ñu lancé nee nañu Ama mooy Sonko Sonko mooy mooy Ama Balde donc xale yi dañu. waa li neex de waa na kàddu yu ñu wax jëmale ko ci ki nga xamante ne moom mooy Diomaye mu mel ni rek convoi bi dafay gën a yokku si ful bi saa ñu egsee rek gars yi dañuy génn. Euh, bu ñu génnee daal di rejoindre li nga xam ne moom mooy euh, convoi bi en nekk na loo xamante ne nii gis nañ fi benn foule bu immense boo xam ne euh, daje nañ fi tey daje nañ fi tey pour fas yéene rek wéyal li nga xamante moom mooy caravane bi gis ngeen noonu li nga xamante moom mooy foule bu ama am doole ñëpp fas yéene génn rek euh, wuy si li nga xam ne moom mooy caravane bi mu mel ni rekk jeunesse boo ci wax. voilà euh, gis ngeen ko noonu. walla euh, dégg ngeen noonu ambiance bi nga xamante ni moom moo xew fii si biir. Pikine actuellement ñu ngi euh, jëm euh, beneen zone Pikine bi euh, gis ngeen ko noonu. <laughs> alors gis ngeen li nga xamante ne moom mbooloo bu takk bi nga xamante ne ñoom ñoo topp. li nga xam ne ni moom mooy euh, convoi bi euh, rejoindre li nga xamante ne euh, moom mooy caravane bi ni dañ ko fas yéene jàppoo nag fi département Pikine bi yëpp gis noonu population bi ñëpp a ngi manifester li nga xamante moom mooy seen bëgg-bëgg jëmale ko posture bii nii est-ce gis ngeen li nga xamante moom moo xew fii ci biir Pikine en bu immense gis nañ ko fii ah actuellement di euh, ñu topp li nga xamante ne moom mooy euh, convoi wu euh, coalition Diomaye bi en nekk mu nek nak tay, xamanteni euh, tay jeunesse bi genn nañu massivement pour euh, dugg ci li nga xamne mom moy caravane bi mais aussi andako ak ambiance bu ama am solo gis ngeen nonu en tout cas li ngeen di dund bir Pikine euh, li mo nek di fi xew mu nek tay deuxième jour campagne électorale bi tegal ma ko nii si loxo donc dañuy wàcc daal di xaw a jege nit ñi tuuti rek voilà. Sonko la ñu bëgg ñun Sonko la ñu bëgg ñun Sonko la ñu bëgg ñun Sonko la ñu gëm ñun Sonko la ñu gëm ñun ayca dégg ngeen li nga xamante ne moom la parti ñun Sonko la ñu gëm ñun Sonko la ñu bëgg ñun Sonko la ñu bëgg ñun Sonko la ñu bëgg ñun. ayca dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne moom la gaay yi wax jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy euh, Ousmane Sonko ñu ngi en fi nga xamante ne moom mooy Pikine Icotaf euh, ngeen gisee ko noonu caravane bi euh, déparé woon fa fële nga xamante ne moom mooy Dalifort ñu jaar buntu Pikine jaar marché Zinc rond-point Dominique jaar Djiddah Thiaroye Kaw. foofu yëpp jaar nañu fa aja foofu yëpp jaar nañu fa foofu yëpp jaar nañu fa euh, pour rek mën a gis nañu ni ki nga xam ne mooy mooy Babacar gis nañu ki nga xam ne moom mooy Babacar Babacar euh, moom ñëw na présenté wu ci ñi nga xam ne ñooñu taskati xibaar yi waaye tam dem na ci kanamu convoi bi pour won askan wi ni moom fii la dëkk euh, fii la milité te fii la amee jafe-jafe ba ñu teg ko loxo ginnaaw bu ñu ko bàyyee tam fii lay ñëw di représenté ki nga xam ne moom mooy Diomaye Faye ay ci amna solo may euh, waxar rek euh, yeen mbokk internet Senegal 7 ñu leen di jaajëfal bu baax baax neena naa leen la bonne information fi ngeen koy amé en temps réel ñoo leen di jox information bu baax bi ay ci gaay tapoté tapote leen kër bi ay ci tapoté leen kër yi ngeen wax ma euh, fan ngeen ni sétané li nga xamné ne moy live bi wa Senegal wa diaspora bi ay ci ay ci ay ci wax leen ma fan ngeen nekké may jaajëfal internet yi nga xamné ne depuis sank ba tay ñu ngi ku wax sandika wax Pikine ku wax sandika wax Pikine wax mango ah wax orange donc commerçant yepp a ngi fi tay gis ngeen euh, li nga xamantene mom moy marché bi acha gaay ñu ngi leen di nuyu. wa ñi ngi delo ciar bu baax wa fi moy marché sandika waaw di marché bi nga xamne fi la ni lo ñun ñi di wax ak yeen xala yaangi sanante ay xeer amuy wa keur Amadou baye a gis ngeen ne à chaque fois bu caravane yi rek da ngay gis xeer yi dafay jóg gis ngeen ko noonu ñoom ñëpp daw nañ dugg ci biir gis ngeen ko noonu voilà gis ngeen